koy ñaanal aussi fu mu jëm yàlla na doon fu gën ci moom étoile bi muy takki ni yàlla na ko yàlla yokk yàlla mën na ko côté administration teg na ci ñu ci yoon war ñu liggéey bi carrément chaque jour daf may woo bureau di ma expliquer di ma conseiller di ma encourager aussi ci yoonu police bi en cela maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax bés bi jombul ci moom

il nous appelle collaborateur bu ko neexoon mu wax ñu ko ñu ngi liggéey liggéey bu rafet teg ko ci yoon ku ñëw ñu orienter la sensibiliser la informer la wax la fi ngay teg sa tànk Omar dafa fa jógee fu sonn Omar def na armée bu jógee armée ñëw école de police comme agent bu jógee agent góorgóorlu di jàng di liggéey nekk sous-officier agent de police jógee agent de police mu liggéey di jang yàlla def officier de police lieutenant Omar Ndiaye bu mu pare Omar commandant la xam mais Omar génie la xam Omar quand je suis un formateur il m'a beaucoup séduit pour lu tax parce que Omar bu ñu koy indi poste de police xamulone dara ci sécurité publique dara

Donc, Je remercie Monsieur l'inspecteur général, directeur de la police nationale. Mon mon Khamne, choisir par tant d'officiers, confier mon poste police Le directeur de la sécurité publique, Diaple le commissaire central, ici représenté par le commissaire Camara, Diaple Métier aussi Donc, c'est mon autorité à Mosen paye. remercier aussi, de féliciter aussi, à remercier Monsieur le procureur de la République. Parce que aussi police, il y a des branches Police administrative et police judiciaire. Si vous judiciaire, qui est le procureur, tous les, tout le personnel de son parquet, le plus de judiciaire dañoo taxaw jàppale accompagner aussi il faut que je remercier remercie remercier aussi l'administration territoriale à commencer par M. le préfet et le sous-préfet de Thiès Nord moi aussi vraiment si vous liggéey bi je vous bu chaque fois nous déggante chaque fois nous communiquer donc ci fànn boobu nous avons un pays lu jëm administration toujours remercié remercier les autres membres des forces de sécurité et de défense parce que toujours ngeen gis ko y a une opération combinée am police, police gendarmerie donc force forces yëpp moo xam armée gendarmerie moo administration pénitentiaire moo douane moo xam eaux service de l'hygiène Nous ñëpp dañuy lëkkaloo ñeen di parce que askan wi moñu taxo jog askan bi liñu le Médina Fall dafa am particularité ñëpp wax nañ ko fii du ma si dellusiwaat ku fi bugg a nekk bugg fi ici, il faut que nga xam que Médina Fall c'est une très grande localité nga xam ne Médina Fall tuutiwul si anam yëpp nag. je remercie mon personnel ici présent sous officier agent de police ASP. la ngeen warloo woon ak man yëpp matale ngeen ko gàcce ngaalaama